dem sur le port très rapidement ñu ñu wax ci leneen parce que dama gis sax nga ne euh, am na loo bëgg a expliquer ci lii. Euh, non dama ko bëgg wax ne euh, poor bi ses difficultés ma nga tàmbalee ba ñu ne dañuy embargo Mali foofa la départ parce que déjà Sénégal dëkk yi ko wër yëpp am nañu ay port moom ñi nga xamante ni ñoo soxla portam à part moom li mu soxla. Mhm. mooy les pays de l'AES là. Mhm. Mali ay Mali Burkina Niger. bu ñu demee ba euh, Macky Sall lu décidé ànd ak waa CEDEAO que dañuy embargo Mali ci la waa Mali commencé ubbi corridor ak la Guinée Conakry. yu bëri léegi seen marchandise yi loolu foofu la ñuy jaar moo tax port bi fii affaire bi rës. et ça coûte plus cher de Conakry euh, fële. Euh, tout mhm. mais xam nga xam nga leneen li nga xamante ne nii. Euh, euh, euh, moo moo te moo nekkoon sa question bi sax. Mhm. maanaam mooy naka la ñuy def ba apaiser l' espace politique. Oui. déjà il faut que ñenn ñi comprendre que euh, euh, Ousmane Sonko ou bien le Pastef nekkuñu ne dañoo créer seen parti ne dañuy xeex ba jël le pouvoir man en tout cas li ma ci fekk mosul demee noonu. Mhm. ce qui s' est passé mooy dañu teg seen parti teg seeni programme. ñu indi leen ab complot bu jóge Sweet Beauty foofu la coow euh, euh, comment dire gatsa gatsaak leneen ak leneen ak leneen ak leneen jóge moom wax na ko sànq nee na Khalifa Sall jiñ nañ ko lu dul dëgg mu accepté tëdd saison son choix bu ko neexee mu ne du xeex buñ may teg injustice la damay dem tëdd kaso mais gis nañ ñu mu ko yàqal parce que élection 2019 yi waroon na ci bokk Macky Sall moo fexe teg ay pexem ba bokkul ci élection yooyu Karim Wade la même chose est-ce que nag Ousmane Sonko da doon nangu fu ñu jaarale Karim Wade jaarale foofu Khalifa Sall moom mu jaar fa se la seule question léegi nag pour nga xamante ne nii parce que sax benn instant ñenn ñi dafa mel ne c'est le choix des sénégalais la ñu accepté wul c'est comme si ñoom dañoo bëgg a wax sénégalais que yéen da ngeen a juum c'est comme si dañuy wax sénégalais yi yéen warul leen woon a voter ñii <coughs> moo tax ma ne benn instant sénégalais yi la ñu manqué de parce que bu nekkee ne yow da nga bëgg opposition rek. yow nga ne woon sénégalais yi comme ni ma déggee Abdou mu ndaw di ko wax. di ne Pastef waxoon naa leen ne Pastef c'est un danger. ngay wax Pastef c'est un danger c'est un danger ba bu ñu de te teewul ba ñu demee élection 54 pour cent sénégalais yi votel ko ñu ne loo xamante ni mosu fi am. Mhm. donc di ne man nee naa sénégalais yi lii baaxul ci yéen. malgré ça. voté ngeen ko. Mm-hmm. léegi da ngeen seetaan ak ñoom di ngeen xam ne ñii ay cuune lañu. Mm-hmm. ngeen bank seen loxo ñoom bu ñu cuunee def comme yéen ñi Sénégalais yi defoon ak yéen noonu la ñuy def ak ñoom. parce que ne nekkul que dafa jënd Sénégal wala dafa war a toog wala parce que lële. Mm-hmm. Sénégalais yaakaar la ñu am ci ñoom. comme ni ñu amee woon yaakaar ci Macky Sall te Macky Sall nit ñi jékki-jékki wuñu rek mu ñëw installé wu ñuy dal ci kawam. même bu doon mënoon nañ ko nag mënoon nañ ko de parce que Macky Sall mois d'avril la prêter serment mois de mais mu créé CREI mu mu ressuscité CREI mois de juin mu jël pétrole beeg gaz bi jox ko Aliou Sall. daal déclaré patrimoine huit milliards kon kooku xam nga mënoon nañu dès le ce départ mais sénégalais yi dal ci kawam ne yow pétrole boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk nga jox ko société boo xamante ni sa rakk moo ko jiite kon yow dootuñu la baal dara bu nekkoon nañ pouvoir bii nii dañu nekk ci contexte boobu boo xamante ni Pastef la far ñu ñu leer la leen ne ñii ñu jàkkaarloo kat dinañ leen yàqal ci élection député yi di ñëw ñuy jéem di leen di wutal ay fu ñu leen jaare ba tëj leen kaso mais bu boobaa sénégalais yi dañuy taxaw nañu ko bañee woon ci Khalifa Sall bañ koy tëj te teguñu ko ci woon ci yoon mhm. nañu taxawee woon ci Karim bañ koy tëj te teguñu ko ci woon noonu lañ doon taxawee également ci ñii bu doon dañ leen a tëj te teguñu ko ci yoon mais bu nekkee ab pouvoir bu bees sénégalais ko à 54 pour cent ñu ñëw avant même ñuy installé wu ngeen naan Bassirou Diomaye karawaat bi nu mu ko takkee baaxul laase yi nu mu ko takkee baaxul mais yaa ngi imaginer coow li fi am depuis c'est euh, ba ñu ne le 2 avril pouvoir bi installé wu na ba léegi. génnee nañ fi débat wu armée le général Kandé ne premier ministre ko wax mu ne du def. génnee nañ fi euh, euh, comment de débat religion. Mhm. que ñii dañoo contre tarixa yi. génnee nañu fi maanaam débat bu ne teg nañ ko fi. parce que tout simplement am na ñoo xamante ni d'accord ci choix sénégalais yi jàpp na sénégalais yi dañoo juum dinañu def le tout pour wane ne ñii dañoo cuune de sorte que daw làqu ba la nekk Maroc ñu préparel ko ndax 2029 mu mën a woon nekk candidat ma daw bu nekk Maroc <laughs> tout simplement loolu moo nekk seeni pexe de de sorte que mooy li ma la wax <laughs> jéem nañu toog xaar pouvoir bi def loo xamante ni du yoon ñu dal ci kawam. ñoom loolu rek la ñuy xaar. Hmm. na def bu baaxee bu baaxul dañuy dal ci kawam. est-ce que la stratégie la plus intelligente. Hmm. nekkul woon je sais pas comme ni euh, euh, ay Thierno Alassane Sall ay ay ñeneen. c'est-à-dire que toog di observer ñii ñuy def. Hmm. yenn saa yi nga gis loo xam ne da nga jàppale jaaduwul nga bind benn tweet wala benn texte bu ndaw wax ne lii jaaduwul toog di leen seetaan ak sénégalais yi mm-hmm. xam ne sénégalais yi ay njàccaar lañ mm-hmm. Ousmane Sonko mën leen nax peut-être au bout d'un temps mm-hmm. mais mënu leen a nax pendant cinq ans moom Bassirou Diomaye Faye si ce sont des nullards d'ici quelques jours les gens les sénégalais s'en rendront compte eux-mêmes est que la stratégie la plus simple la plus intelligente à fait te boobu sax day fekk nga respecter le choix des sénégalais nee naa la yow boo doon dànkaafu sénégalais yi naan leen ñii baaxuñu ci yéen ñii baaxuñu ci yéen. Mhm. te terewul sénégalais yi bañ demee bay voté ñu jox ñenn ñi ay frais oral mu ne ñenn ñi ñu jox leen ay a comprendre que pour cent yi léegi nag comme ñooñu wóolu nañ leen te waxoon nañ leen ni ñii ni ñu dañ leen di seetaan ak ñoom ba xam fan lañ leen di jëme te loolu waxuma nag seetaan indéter euh, euh, euh, indéfiniment dañ leen di seetaan six mois bu ñu tegee loo xamante ni jaaduwul. Hmm. mais ñu commencé critiquer critique yoo xamante ne ni nekkul ne da ngay saaga nit ñi nekkul ne da ngay inventé pour yàq deru jàmbur. Hmm. mais da nga koy teg ci loo xamante ni sénégalais yëpp nañ ci teg seen bët. te loolu jàpp naa ne moom moo mën a tax yow miy opposant hmm. nit ñi respecté la bu demee boo demee bay wax ñu xam ne kat kii li muy wax nii. dinañ ci bàyyi xel parce que luy jëmale réew mi kanam la. d'accord mais yow def conférence de presse nga ne man su paree ma def ko. <laughs> alors encore une fois du ñu ñu du ñu sori eh, ci yow laay laay jëm après nga. non tontu ko euh, démarrer. waaw ah, ok du ñu sori thème boobu parce que dañuy waxtaanee leneen loo xam ne ba léegi euh, ci justice la nekk parce que la justice mi ngi commencé di ci liggéey mooy li ñu tuddee la reddition des comptes. Hmm. Euh, bari na ay wax yu ñu ci waxoon ne gaa ñi xaalisu réew mi fu lañ ko def. gas nañ ko suul euh, def nañ ko wax nañ lu ne maintenant am na ñoo xam ne commencé nañ leen ci déglu am na sax ñoo xam ne yoon